téléspectateurs c'est avec un réel plaisir qu'on vous retrouve euh, ci seen biir émission Vox Arena ñu ngi fi nga xamante ne moom mooy Géejawaay nekk këru Lac de Guiers numéro 2 mu war a def open press léegi ci kanam alors gis ngeen mbokk yi ni nga xamante ne sama ginaaw ni nga xamante ne gars yi ñëwee nañ ko fas yéene ànd ak moom ki nga xamante ne moom mooy la de du yomb parce que mu ngi jëm ci bës bu mag dama bëgg a dem ak euh, yéen ñu dem xooli ji réaction gars yi nan la ñuy waajalee combat bi ak seen diggante ak Lac de ñu dox daal di dugg aussi ci mbeddu euh, géejewaay yi laajte réaction ki nga xamante ne moom mooy ñu fi dëkk na la ñuy dëkkee ak Lac de Guiers am na lu ñu wis. voilà euh, bi ñu ñëwee fii ñu ngi fi fekk sunu benn papa papa ñu bàyyi la nga présenté wu. gannaaw bi ñu la c'est Tons. oui Tons bu Lac de Guiers. tout le monde le connaît. presse bi yëpp xam nañ ma mbër yëpp xam nañ ma. c'est comme pomme terre ak Angleterre. sa diamétralement opposé. kuy pomme de terre ak mais bu ma la waxee loolu xam nga ko pomme terre bi xam nga ko. c'est Boy Niang qui est pomme de terre. ah bon waaw mais pourquoi pas. mais Boy Niang mu ngi ci dynamique de victoire. dynamique de victoire ku nekkul ci dynamique de victoire. nekkul si de victoire. kon yéen fu mu toll nii yéen Boy Niang jaaxalu leen. yéen yéen am problème yéen. ñun journaliste waaye mais c'est pas nous. Ah ku bëreeg Yékini. bëreeg Moustapha Gueye. bëreeg Modou Lo bëreeg Eumeu Sène mi koy wax Eumeu Sène ñun ñoo ko daan tey laa lay door wax loolu. Eumeu Sène nee na ko daan barki Nabil Moustapha. Eumeu Sène daanu leen. yàlla xam na ko. arbitre moo ñu daan mais ñun ñoo daan al Eumeu Sène reporter yi ak tous les journalistes ñëpp xam nañu ko. mais c'est arbitre qui nous a terrassé. mais lu tax contesté woo leen. CNG euh, am na fi yoon am na fi. mburu foof ko farin ñun one n'est pas comme ça on n'est pas comme ça ñun lii lañu xam. yoon waaw mais ba nga gisee yow tey boo bëggee dugal ci YouTube tu tapes Modou Lo nga tapé Eumeu Sène Lac de nga xool seen première signature Modou Lo Eumeu Sène Modou Lo wax na ko ne na ko Lac de Guiers daf la daan. yow mi may interviewé nii yow tu sais que Lac de a terrassé Eumeu Sène. ah mais <laughs> papa man xaw ma ne man man CNG ñoo ñoo ñoo joxe. pas les de CNG la c'est des nit comme yow. mais mais mais lu tax yéen ngeen défensif ci wàllu woowu waa CNG parfois ngeen attaqué euh, nu ma reporters yi lu tax. nous on attaque personne on attaque personne parce que kenn yarewuñu loolu. samedi. Ah, na ma di pas pare ngeen waaye ah, pour pare pour kii. est ce que nii ngeen di waxee bu ko la jëgee bëree du yombal du du du ko yàqal. gaynde je vais te faire comprendre quelque chose moi j' étais j' étais bien clair avec toi j' étais bien dit. je te dis pomme de terre Angleterre c' est diamétralement boo ñàng c' notre derrière on parle Modou Lo Eumeu ku ci daan la ñu soxla. di leen wax na rek euh, Lac de Guiers moom chaque jour dañuy am confiance ci moom. parce que mbër la doomi mbër la chaque jour dañu am confiance ci moom fii la dëkk géejuwaay géejuwaay boo fa xasee ba dëkk soo nee mbër nga rek doomi mbër ngay doon ndax fii ay samp yooyu bëri ñu ngi fi fi lañ juddoo fi lañ yeroo koy lim du fi jógee ah ñu koy waaj nag waaj bu metti sax waaw. booy ñaa euh, a bëri a moom ku ne xam na ne wax la féete da koy bàyyi muy wax rek waaye ñun xam nañ suñu mbër jëf la gën a jëf a mëne ko ay wax non boo Niang moom nekkul ko ñu jaaxal dagg dëgg fa ne xaal bu combat bi jotee lépp dina leen incha allah. waaw ça va naa la. naka coono yi. ça va alhamdulilah ñoo ngi ci dee. waaw nan nan ngeen dundee euh, combat bi mu taxawee ba tey. bon mu taxawee ba tey dañ koy jël ak sérénité ak xel bu mag waaw parce que ñun xam nañ suñu mbër daal xam nañ suñu mbër bu baax a baax a baax bu dara dul dara kenn mosu ko ne ngàll daañu daal mu egg suuf wax dëgg fa neex yàlla waaw. ragaloo leen booy ñaaw. ragal <laughs> bëri nañ ñu gën a pire magam Eumeu Sène bëri nañ bu gën a pire ñaari yoon te dégg nga li ci Pape Birahim wax bu ñuy daanu ci la booy ci la Eumeu Sène samp boppam donc boobu normalement match la ba léegi tu nañ ko victoire na jël ñu jox ko bëri nañu Modou Lo aussi à deux reprises ba léegi Modou Lo mënul yëkkat suñu tànk teg ñu suuf donc Lac de du ko jug daan ko gis leen ko noonu rek mais moo gën a naqaree bëreel ci làmb ji. waaw comme ni ñu doon waajalee suñu combat yu njëkk yi rek waaw. mais est-ce que bii bokk na no boobu. non instant bii nii bii sax laay wax moom lañ gën a waajal sa yu njëkk yi parce que bi daf ñu ko jaral. waaw te xam nañ bu baax combat bi fuñ fu ñuy yóbbu. war a dem arène nationale bëri ji ko fa di feefu Boy Niang jaaxalu non loolu du problème parce que doo xoolee moom foofu noonu ëppale wuñu fi. non non gënuñu jege foofu ñun ñoo ngi ni pare dañuy xuus rek si ñaar dañuy xuus yàgg. pare nañ lépp. dañ xaar ba le treize incha allah rek yàlla may ñu ndam waaw liggéey la ñu ko war a liggéeyee instant combat bi du yomb de. démb gis naa na doole de. non Boy Niang dooleem de ko noonu rek wala jaaxalul grand bi te fu mu ko jàpp jël la barke alxuraan. bu ko jàppee mu jeex. billaahi te yoon sàng waaye nelawaguñ de billaa walaay wa talaay. rang-rang def sa poos waaw. gra gra naka coono yi. sant gra naka yi. sant. combat bi mu taxawee ba tey noppalee ko wala. non mais dañuy xaar bés ba rek incha allah ñu mënoo ñu wax. Ah. no non. mënoo leen wax. non ñu duñu wax. mais booy ñaa taxaw na de. taxaw waaw am na doole daal. yàlla na taxawee noonu ba jour instant bi ñu daan ko rek amul problème. combat bi ah ñu ngi koy waajal bu baax baax a baax a baax amaana tey jii nii moom combat bi moom. maanaam combat gox bi la waa Géejawaay la combat bi combat ñëpp la maanaam ñëpp la ñu ñëpp suñu biir ñu woo ñëpp waaw mais nag tamit amaana combat bi tamit teg nañ ko foo xamante ni man maa jàpp ni waa Pikine sax teguñu ko fa mais comprendre ñu après li ñuy comprendre. su combat bi de. waaw non lu ñuy rek cent pour cent barki seef non amul bilaay amul saa ñun xam nañ lépp li ñuy si biir mais ñun xam nañ lépp mais Pikine à 100 pour cent ma man de gëw ma ko ah 100 pour cent gëw ma ko. mais géejewaay 100 pour cent bi gëm nga ko. waaw géejewaay 100 pour cent gëm nañ ko. waaw parce que tamit amaana am na koo xam te ne mu ngi biir Pikine mais géejewaay la ne. léegi ci kanam mbokk yi ngeen topp ñu ñu dem fi nga xamante ne moom la Lac de Guiers di defee open press am ñu dem.